Baby, now I'm done. jërëjëf mbokk ne ñoo ñuy suivre à la vision Web Info Sénégal Info Sen TV ginnaaw ni ma koy defee à chaque fois di leen safoo di leen ndamoo di leen tiitaroo tey nag ni niñ koy topp talee ci làmb à chaque fois tey maa ngi nii ne leen bawal dafa xewlewaat ñu seet fi kan mu mbëru HLM bi ne nañ couloir yoo xam ma jaay la tey mu am xale bu doy waar bu muy bëreel tey ñu war koo waxtaanee nu mu waajee làmb ji rek ak fan la mbër toll yaa ngi maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa lay fay di wax onze billah bismillah inna di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di leen ñaan ñu yàgg fi loolu te wér ba fekkee suñu njëriñ du nuyu suñu sëriñ Cheikh Basirou Mbacké di wax ba lay sa dundal yàgg fi loolu te wér du nuyu Sénégal monde entier du nuyu waa Bendali Biscuiterie Grand Dakar waa Aslem surtout fii nga ñu fekk nag muy suñu sees suñu lépp fii lañu fii la ñu bàyyee suñu waar quoi muy Aslem fii ma fiyaa yokkal ma jaayal bi quoi képp ku naan yokkal ma jaayal rek maa lay bëgg di la bu baax a baax di nuyu suñu yaay yi suñu papa yi suñ mag yi suñ frère yi boo bokkal nekk ci fii yëpp waaw di wax ne ba laa mujj taxaw ba day waaw yéndal duñ fanaanul luñ ñu ngi def lépp luñ mën ak luñ mënul di leen wax na gis nañ taxawaay bi di leen ñaanal jaamu bis ba ñu yegg ceeg suñ suñu borom dafa ñu dam di nuyu waa Touba sama waa dëkk waa Ndindi waa di jaale sëñ Galas Mbacke Sindiri su nekkoon suñu wasila moom sëñ Abdou Karim borom Ndindi ñu ngi koy jaale di ko masaw waa Ndindi yëpp waa Touba njabootu mbir yëpp ñu ngi koy masaw di wax Balaye Seye fa mu tëdd yàlla na ko dàqal fi mu jógee di ñaanal Baye Karim Mbacke ak njabootu mu yëpp ñoom xolu muñ mu nekkoon kenn koo xam ne ñun kenn la woon si ñun quoi daan ñu ñaanal bu baax a baax di ko masawu ñëpp di ko ñaanal bu baax a baax di nuyu waa kër maam Saliou Fall waa leen siyaar bu baax a baax ku ci mel ni sëñ Amdi Fall ñu ngi koy siyaar bu baax a baax sëñ Khalifa Fall sëñ Modou Fall dal jàmm ñu ngi koy siyaare sëñ Saliou Cuuc di siyaar waa Mbacke boor gépp ndigal Kala Fall ñu ngi koy siyaare bu baax a baax képp koo xam na ngay bëggee Yankaw Junior rek ñu ngi lay siyaare waa Saloum bàyyi ñu leen waa Samba Gueye tund Njombaado fépp ñu ngi leen siyaare waa Kër Ousseynou ñëpp di leen siyaare waa Sogone ah waa Kaarang ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di nuyu waa Djilor di leen wax ne gis nañ ñaan gis nañ taxawaay bi yàlla suñu borom matale lépp di nuyu estafu Yankaw bi tamit ñi nga xam ne dañuy sonn ci Yankaw Junior di ko estafé fuñ toll di dox ci ay mbiru Yankaw ku ci mel ni Sendal sama nijaay Yankaw 1 ñagas 2 Jabel ah, di ko siyaar bu baax Cheikh Maam Saliou yaroo baax seelu bu yankaaw ah waa mafia bu dëgër bi gis nañ taxawaay bi ku ci mel ñoom Ama bu Njeefun ñoom Mout Sarr ah, ñoom Omar Mbayu ah Idi ah ku lim juum daal président fan club bi tamit Pape Sila bi combat bi taxaw ba léegi mi ngi ciy def ay démarches di xool ni mu mobiliser booy di sonn ngir ñun di ko ñaanal bis bi li nga xam ne moom lañ ci bëgg borom sura defal ñu ci ndam di nuyu képp kuy bëgg Yankaw Junior fans club bi groupe bi cat ba cat bàyyi ñu kenn gis nañ taxawaay bi barke Serigne Touba gars fu ñu toll def ñaan yow seen mbër mi ngi ci di waaj bu baax a baax a baax a baax bés bi ñu ngi koy waaj de. nuyu nga àdduna nuyu ñëpp waaye mbëru bawol bawol yi fan nii nee naa leen dañoo muume fa nga jël combat muy combat bu xale bu mën a bëri man sax dama ne combat bu diis Modou Baye Fall def lu doy waar nag ndax dafa boole ñaari xale yu ës mu boole leen lan mooy choix du combat sa diggante ak nga xam ne mooy bébé. choix du combat bi mooy ñu nekk xale nekk ci làmb. laa mu nekk suñu métier quoi Bébé Gouy Gui nekk champion nekk ndaanaan def ay performance am ci làmb quoi làmb boole ñu ñu war koo bëre le 28 janvier yaakaar naa maa ngi koy wax keroog signature ba suñ combat yàgg nañ koo bëgg mais yàlla defu na sotti wuloon boobu ba mu ngi door a sotti le 28 janvier day ñaan le jour si Modou Baye Fall lim ñu taamoo ba tëgg ñu yàlla bu mu ko réccu waaw di ko ñaan réussite totale ci bis boobu moom Modou Baye mais est xam nga sa adversaire nee naa la ki ngay dajeel day ndaanaan ci làmb ba pare di xale boo xamante ni dafa tollu ci yéeg. waaw Bébé Gouy xam naa ko bu baax li ma lay wax rek suñ combat waroon naa yàgg taxaw ba léegi taxawul siifur nañ ay combat am ñaar yëpp ay xale lañ ci làmb mu nekk ndaanaan yankaw li may wax rek man du ma bëree n'importe qui ci làmb ku nekkul ndaanaan du ma bëree yow ci làmb dañoo sawar ci bëree ak ndaanaan ndaanaan la champion la mais ndaanaan mooy daan ndaanaan dañuy ñaan bu suur ba suñ borom su daal ñu rek may ñu ndam bu baax mm-hmm. mm. ngay waajee combat. waaj mooy li nga gis nii rek nekk ci entraînement yi nekk ci lañu ñu war a nekk quoi lépp luñ xalaat ne moo ñuy may ndam rek ñu nekk ca quoi di wax ne bés bi dañ ko soxla wallaay waaj nañ waaj nañ bu baax ànd ak suñuy mbokk dañuy ñaan yàlla ñu yàlla suturaal ak defal ñu ndam bés bi nii du bés bu ñuy waxee bés bu ñu war a jëfee la te daam loo xam ne gox bi ñu dëkk ci làmb dañu koy jiiñ quoi muy champion te bis boobu noonu dafa jot ñu ma loolu noonu. li ñu wax rek slogan bi ci làmb bi mooy app bi jot na quoi. li ñu jë. app bi jot na laay duggee yow keroog ñu gis leen face à face ba yéen ñaar nga mel ni ku xonet mer mel ni xale bi dalaa dalaa da nga ko xaw a tàppet lan moo keroog loolu waaw keroog loolu dinaa ci wax quoi dinaa ci wax c'est dama nekk ak sama staff quoi ñu lu ñu loo xam ne dañ ma conseillé bi ma dem ci làmb ja te keroog dërëtu mbërëb bi dafa xaw a yëngu yaa moom bu duggee ci làmb rek bu dërët bi yëngoo rek day làmbe quoi. mais du dara du journaliste du mbër bi lu ma def du dara dama bañ deretu lamb bi dugg foofu rek ma jaxase foofu moo tax teg micro yi def ndax liñ foofu li def nañ ko quoi wax nañ signé suñ contrat woo ñu war a woo dañuy bañ deretu lamb bi yëngu foofu noonu ñu def la lamb ji bu yëngoo loolu naroon na def. non deretu lamb bi day yëngu deretu lamb bi dama bëgg le 28 rek lépp luy lamb ci a yeewu quoi. waaw ba le 28 lépp luy lamb ci man rek yeewu bu le 28 incha allah. Mhm. ay ca yanka ñu gis keroog nga ñëw laal gaa mu mel ni combat bi da nga ko teg ci mystique wala dañ laa dee loolu jaaxal. non man moom li may wax rek sama slogan du mystique quoi man moom liggéey pur et dur ñax jëriñu te boo xoolee loolu noonu ki ki tëgg ki ñu tuddee suñ dara bi mu Modou xarañ loo imaamu lamb ji wane na loolu quoi ay xale lañ bu ñu dem faaw ñu wut ay muslaay ñi nga xam ne ñoo nekk suñ ginaaw suñu esaf di wut di la jox rek ngay def. mais lamb ji ñun ay xale kenn mënu daan wala dara ay muslaay ñu def suñu si liggéey pur et dur moo lay tax nga am ndam dañuy ñaan suñu borom nag mu suturaal ñu defal ñu ndam di ñaan nag képp koo xam ne rek mën nañu ñaanal yàlla suñu borom mu may ñu ndam rek ñu ngi lay taalal suñu loxo di wax nga ñaanal ñu mooy dajeeg ndaanaan waaye combat bi dayo combat bi est xam nga après fa la la combat bi mën a yóbbu parce que combat bi combat de déclenchement la suñ ko xoolee ci gannaaw mu mel ni da nga amee bor say supporter lan lañ mën a xaar ci Yankaw ak retour. bu rëy rëy sax li may wax ak samay supporter à chaque fois li leen war ñu ngi ci quoi ma am lu ma leen desel mooy li ma lay wax chaque jour rek te daa am loo dañ koy jiiñee yankaw ci gox bi mu dëkk ci làmb quoi mu yankaw champion la champion la champion boobu na dañ ko war a wone te loolu àpp bi dafa jot du combat bii de li suñ kanam yëpp dafa am ci war a wone waat dañuy ñaan ñu yàlla kàttanal dooleel ñu ba li nga xam ne suñuy supporter ak ñu ñu bëgg ak làmb yaakaar na ko si ñun suñu borom kàttanal ñu matale loolu quoi làmb bi làmb bi nii li suñ kanam si làmb yëpp dañoo war a wane loolu mais làmb bii nii mooy ubbite gi dañu ñaan liñ liñ li waaj yàlla na suñu borom kàttanal ñu ba jour ba mu may ñu dam ko mais waaj nañ bu baax. loo waaj li nga waaj nañ. dañoo waaj rek boobu léegi yow la sa yaram damaa waaj rek. yaa du dee sax loolu lu ma liggéeyal sama bopp lu ma gis sama bopp samay mbokk ñu nekk sama ginnaaw am am am am luñ fuñ teg lamb ji quoi moo tax lamb ji du lamb ñu war a ñaax dañuy ñaan yàlla suturaal ñu defal ñu ci ndam bu baax a baax waaye di wax ne Bébé Gouy Gui waaj nañ bu baax waaj nañ te xam naa ne moom tamit xale la te am na fu mu teg lamb te moom tamit day waaj làmb ji làmb jàmbaar dëgg la war a bëre ndax drapeau jàmbaar la. Mhm. kon daal mu mel ni pareel nga xala njaago bi waaye foofu laa ñuy laaj la yankaaw ak euh, làmb ji bu ñu ñëwee est-ce que pare nga pour samp jaaga wala lan lañ mën a xaar ci biir combat bi. waaw moom li mu pare ci ji mooy daan bébé guy gi rek ay supporter am ak lépp lu ma ko mën a daane rek lépp lu may may ndam rek pare naa ko quoi naa rek bébé guy gi moom nañ dégg ne daan na bébé lépp lu may may ndam rek yàlla ma yàlla suturaal may ma ndam. ndam rek moo ma ñor ci làmb ji. parce la su la waaw yoon la mu nekk xeexkat mu nekk bërëkat mais làmb ji man ndam rek moom ma ci ñor lépp lu may may ndam rek dinaa ko def. lépp lu ma may ndam rek dinaa ko def ci làmb lu naa am ndam rek làmb ji ndam rek moom ma si ñor. Mhm. Mhm. kon mën nañu yàpp ni combat bi day yàgg parce que fu mu la woo mooy loolu nag mu yàgg ndax ay làmbu xale la. ko wax ju mais en tout cas daal ndam laa ci bëgg te yàlla na ma ko yàlla suturaal defal ma ndam quoi. Mhm. lan lañ mën a xaar parce que lii ñu gis nii rek mbëru askan wi. mbëru bawal bi ak yokkal ma jaale bi lan lañ mën a xaar côté mobilisation. waaw côté mobilisation li ma wax li ma waxoon rek ndaxte sama waa mafia yokkal ma jaale bi ñi ñooy sama Malick Gakou quoi ñi ñooy dajale seen fukk ak seen ñaar fukk di ma ko jox barki Serigne Salim Mbacké waaw dañoo jàpp ci combat bi taxaw ci bu baax a baax a baax a baax chaque jour ñuy seen fukk seen ñaar fukk di ma ko jox quoi di wax ne gis naa taxawaay bi. su ma limee damay juum képp koo xam ne nekk nga ci biir asalem muy mag muy papa muy xarit muy rakk gis nañ taxawaay bi barke alxuraanu karim gis nañ taxawaay bi gis nañ yéene bu baax a baax dañuy wootaat rek bépp autorité yi nga xam ne ñoo nekk biir asalem muy borom magasin suñuy frère lañ suñu lépp lañ dañu wax ne seen doom seen rakk seen xarit moo leen woo ci bés bi nii di wax ngeen sutundee ko taxaw ko ci maire asalem muy suñu meer te ñun tamit fii lañ nekk di fi liggéey du fi daan suñu doole quoi ñu ngi koy woo ci bi tamit muy suñu maire asalem bi di ko woo ci combat bi pour mu jàpp si bu baax ndax combat bi ni du fii lañ dëkk benn tali la ñuy déparé te foofu lañ dëkk te waa gox boobu tamit dañuy waaj bu baax a baax yaakaar ñu mais tout temps suñu dem wallaay béy ak kaar day metti trop si ñun ndax de mbër mu ndaw li lay fay boo ci préparé woo def ci sa regroupement ànd ak ay boo yoo xam ne sawaay dañuy dajale seen fukk day metti quoi di leen woo Moustapha Diop maire bi di ko wax mu jàpp si béy ak kaar di woo maire benn tali mu jàpp si bëgg nañ mu jàpp si bu baax a baax a baax baax di wax mobilisation moom bëgg nañ koo def ndax de drapeau drapeau jàmbaar la promoteur bi xale la nekk suñ mbokk bawal bawal am ci ñun yaakaar kon le jour dañoo war a ñëw taaral stade bi quoi di woo képp koo xam ne mën na si jàpp rek ñu ngi lay woo taalal loxo di la woo ci combat mhm. képp kuy takk ngemb bëgg ngaa mel ni Modou Xarañ loo muy borom passé nekk le roi des arènes ñu jël seen euh, combat bi duppee ko drapeau bi yëg-yëg bi lan. waaw kontaan ci fier am ci fierté bu baax a baax nag ndax Modou Lo moom jàmbaar la quoi képp kuy takk ngemb rek. waaw da ngay fier ci bëri drapeau Modou Lo quoi te man ak Modou dafa am. baax a baax di ñaan ay bokkam jàmm di ñaan ay supporter am jàmm di ñaan promoteur bi jàmm di ñaan sama bopp jàmm di ñaan sama mbokk jàmm da parce que bu ñu amee jàmm rek la suñ si dañuy mën a ñëw ku ne remplir sa contrat di ko wax ne champion la ndaanaan la di wax ne man champion la ndaanaan la ne ko lamb jàmboor la ñuy bëri waaw dama ne ko dama koy wan ne lamb jàmbaar la ñu war a bëri rek ndax daa am lu muy wax moom quoi dana yankaw daf koo ragal loolu doon wax chaque jour di ko dégg ci média ma ko Bébé Gouy Gui yaa ne Yankaw dafa la ragal mu waaw ma ko Yankaw jël la lamb ji ñëw na la suuf si nag bëre dara boo jàmbaar def ko yëfi jàmbaar quoi waaw. ko yàlla ba nga toll tey nga ñëw fekk rek gis kaa waaj. non tey nga ñëw di kii nii di la daanaka la quoi. lépp xar lépp xar lépp lépp ah? ay ñëw. ay jërëjëf non bébé guy gi laay waxal man loolu man kenn ku may waxal bébé guy gi laay xale la muy liggéey mu ne jéem tolof tolof mais yaa ngi rek lan ngeen di yaatal ñu fekk leen fii biir HLM en tant que seen roi seen champion am combat xale bu doy waar lan ngeen ko waajal. ñun ñun dañuy ñuy soxna si ñun dañuy làmb làmb ji dañuy làmb dañ koo jël bu baax a baax xam ne làmb ji suñu yoon bu ñu jaar jàll la Bébé Gouy Gui duñuy téye ci làmb ji barke maam Cheikh Raval du nekk ku ñuy téye dañuy làmb ñun làmb ji dañ koo jël suñu lépp dañ jël teg ko ci làmb ji barke maam Cheikh Raval day wuji naxaar lu ne ci làmb ji lu mu yaakaar lu ne rek mën naa am ci làmb ji kii sunu mbër la sunu champion la ñu ko bëri champion mooy sunu mbër mooy sunu roi des arènes ñoom lañ yaakaar barke maam Cheikh Raval di woo di woo sama waa ji Sëñ Fallou Diallo borom Touba. di ko di ko di wax mu ñaanal mu ñaanal ko yaa ngi ko képp ku ma xam koo xamante ne man xam naa ko te muy ñaan danaa fa dem ndax moom barke maam Cheikh Rafa ndax laa mujj dañoo ñor. waaw di sant rek di ñaan yàlla yàlla ñu suturaal rek incha allah jour la yàlla maa ñu ndam incha allah rabbi te xam naa incha allah dinañu am ndam. non bébé guy moom ay waxam la yor mais ñun xam nañu ko ñu bu baax. te xam na combat bi incha allah fu mu koy yóbbu te xam na lu ko xaar exa bi dañuy ñaane yàlla rek ba jour ba incha allah yàlla may na ndam te moom xam na lu ko xaar xam na lu ko xaar xam na lu ko doon yàqal incha allah lépp dinañ ko mottali lépp dinañ changé luñ doon ñëwee lépp dinañ ko changé incha allah ba jour ba incha allah yàlla may na ndam. dañuy mobiliser de dañuy mobiliser de. mobiliser dañuy indi barke maam Serfal asalam bi ñëppay dem benn tali ñëppay dem bool bor dañuy ñëw dañuy mobiliser de saalum saalum yi dañuy ñëw laa mujj kenn du des barke maam Cheikh Fall ay ca bala ngaa tëj damaa bëgg nga ñëwoon ma ci xale yi ak liggéey ak Dóor waar ndaxte léegi yoonu suuf si yoonu ndox mi xale yi di dem désespoir bi lan ngay ñaax jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci waaw loolu moom dañuy waxaat rek ñi nga nga xam ne ñoo ñu jiite gars yi ñu déglu Doudou Wade ñi nga xam ne ñooy suñu njiitum réew xale bu nekk ci réew ki nga xam ne moo jiite moo koy may courage quoi pour mu mën a toog mais ku dem du la saani xeer de du la wax lu tax nga dem c'est parce que ku dem ku ne da ngaa ñàkk courage moo tax nga dem dañuy wax ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite suñuy campagne di ñu gëm loo xam ne ñun xale yi ba ñu jël suñu pouvoir def ko ci ñoom nga lawaay bu ñu toogee nañu nañu bàyyi xel askan wi di def yëfi gor lañ leen waxoon ñu ci jéem a teg seen ñu ci ñu ci jéem a seen tàng ñun ñu nekk ay jeunes nekk fii asalem fii la ñu dóoree waar di wax ne ki nga xam ne mooy président bi nañu gën a jàppale Sénégal lan moo fi am yokkal ma jaalam moo fi am nañ ko waxte dee fii boo fi ñëwee borom diplôme yaa ngi fi borom métier yaa ngi fi chauffeur yaa ngi fi Sénégal jaay rek moo fi am mais da ngay toog fii nekk ci benn espace di jaay ñu ñëw jëlee la fa dàq leen tas ko bu dalul fii asalem gën ñu dal de dañuy ñaan yàlla yàlla na sax mais yeneen place yeneen place ñu ngi koy tas te ñun jeunes yi amuñu lu dul liggéey waajur teral suñuy waajur tuxuñu naanuñu defuñu dara dañuy waxaat ñu gesuwaat jeunesse bi xam na jeunesse ñoo yor réew jeunesse yi ñoo yor jeunesse yi koo gis ay sujet de famille lañ yor seen i papa yor seen yaay waaw nañ am nañ tax jeunesse bi am courage quoi ci ñoom njiiti réew yi di wax ne élection yi ñu jëm ni ñu ngi ñaanal ci réew mi jàmm ñu dem ceeg jàmm génn ceeg jàmm quoi que le meilleur ñu xam ne ki gën ci réew mi ki nga xam ne bu toogee du décevoir réew mi suñ borom may ko mu jël élection yi quoi Mm-hmm. ayca Mbeur sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy dama am liste boo xam ne tamit mm-hmm. ñoo xam ne dañ dañuy dañuy lii quoi dañuy dañuy dañuy sonn ci man te tamit saa bu mayee combat dañ ñoom ñoo ci jàpp quoi di leen woo instant bi lamb ji ñëw na te am ñoo xam ne gis nañ am ñoo xam ne leen quoi di leen woo ci lamb ji képp ku ci dégg sutu rek di leen wax ne ñu woo quoi mm-hmm. aja Fallou Fall Touba muy suñu grand frère dëkk Touba muy Galso 94 kooku moom yàgg na see jàpp quoi chaque jour moom bàyyi ñu benn yoon da doon ngénte semaine bi passé di ko ñaanal doom bi yàlla dund bañ fekkee njëriñam quoi di wax ne ko grand frère bi gis nañ sa taxawaay ci ñun quoi di la wax ñu ngi lay woo ci bu baax a baax a baax quoi. gis nga baas bi ñu takk asalem bentali boo fa duggee foo gis baas la mu ne grand frère boo xam ne noonu la mel ci mbëri bentali yi waxuma laa mbëri benn mbëri secteur yi fu waay jógee da lay jàppale quoi di wax ne grand frère bi gis nañ taxawaay bi quoi borom wéral loxo bi waaw yokk la bu baax a baax grand Mbaye Fall mu nekk grand frère boo ne moom njëkk a daggal licence ma bëre ji mu nekk fii asalem di jaati si quoi di wax grand bi ñu ngi lay woo ci combat bu baax a baax Siteu 2 borom nay dëgër seen mbokk reporter Siteu 2 sama doom nday ah Siteu waa ñu ngi lay woo ci combat borom yëmbal doomu nday caatu kayre eh man yankaw si ñoon doom nday maa lay woo ci combat bi bolog laa bëgg nga jëndal ma ko maa lay woo ci combat bu baax Abdou suñu grand frère suñu lépp Abdou Tall ñu ngi lay woo ci combat bu baax a baax yow tamit eh. Moussa Sam daf borom hôpital dalal jàmm ah. doomu ndeyu mbayu ñu ngi lay woo ci combat bi nii ak waa hôpital Dalal Jamm yëpp chauffeur yi nekk hôpital Dalal Jamm yëpp ñu ngi leen woo ci combat bi di wax la lamb ji seen lamb la quoi maître Pape Sène suñu ancien maire de Ndondol ñu ngi lay woo ci combat bu baax a baax a baax Edouard Dione maire de Ndondol ah ñu ngi lay woo ci combat bi combat bi waa Mbombay juróom-ñaari penc yëpp dañoo war a jël ay kaar ñëw te ba léegi carrément ñu ngi lay woo ci combat bi nga wax nga jàpp ci ci biir ak képp autorité boo xam ne nekk na Mbombay bépp grand frère boo xam ne yàlla suñu borom suturaal na la nga nekk Mbombay ñu ngi lay woo ci combat bi ni nga jàpp si quoi. Ablaye Faye sama nijaay borom Tilène a baax a yi ñoom Abdou waa Tilène ñoom Ablaye waa moom tamit suñu grand frère la ñu bokk koñ quoi Palaay ñu lay woo ci combat bi di nuyuwaale waa mafia café gi mm. waa mafia café gi ku ci mel ni faal Baye Fall borom café gi ah, ñu ngi lay woo ci combat bi bu baax a baax gis nañ taxawaay bi di woo booy yëpp ñoom sëriñ ñoom Ahmed ah Sabala 2 sama doomu nday tamit gis nañ taxawaay bi di leen woo ci combat bi yéen ñëpp Badara Diop grand frère bi ñu lay woo ci combat bi di wax ne bëgg nañ nga jàpp ci combat bi bu baax a baax quoi waa waa Massa ku ñu mel ni Bada ah, borom Massa Kassor Bada Mbawar bi ak mbokki mbawar mbawar yëpp ak Moussa Fall ñoom Mout Sarr ñoom Def ak sama booy ñoom Iba Thiam booy cag-cag yi waa xayma ga waaw di leen wax combat bi seen combat képp kuy nekk mbawar mbawar waa caaren Sarr waa Buxul ah waa caari ndax mbawar mbawar dañoo nekk ñoo xam ne ñuy safoo quoi dañu bégee ngi leen woo ci combat bi wax ne lamb seen lamb la quoi Abdou Fall ah, borom Sandaga grand frère bi ñu ngi lay woo ci combat bi wax ne gis nañ bëgg nañ nga taxaw si bu baax a baax ci lamb ji nii waaw masque mooy slogan lamb ji waa Sandaga tamit di leen woo ci combat wax yokkal ma jaal dafa yaatu quoi yankaw ñu koy bëri dafa bëri waa Petersen ñëpp ñu ngi waa Colobane waa Colobane tamit ñu ngi leen woo ci lamb ji bu baax a baax Sadouba la grand marabout suñu grand frère bi combat ba mu taxawee avant muy taxaw yow moom gis nañ taxawaay bi si ñun quoi dañ lay wax ne lamb soxla la lamb bëgg la dañ lay ñaanal suñu borom nga ñaanal ñu suñu borom kàttanal la la journée nga borom defal ñu ndam di woo Samba Ndour le grand marabout suñu grand suñu frère suñu lépp ñooñu bu dul làmb dañuy taxaw ci lépp quoi di leen ñaanal suñu borom dafa leen jàmm di leen wax ne ñu ngi wax ngeen jàpp ci làmb ji ndax làmb ji làmb ji ñor la suñu mbokk bëgg nañ ko suñu supporter bëgg nañ ko di leen woo ci làmb ji bu baax a baax Galabo maire de Mbacké di woo waa Mbacké Bawol gi yëpp sama mafia bi nekk Mbacké waa Tabla Caabi ah waa ñaari baafaal di leen woo ci lamb ji boo yëpp ñu ngi waaj di wax galaba maire de Mbacké mu jëlal ñu kaar boo yu mën a ñëw stade quoi mafia 444 Mbombay mafia 444 Rapadio muy ñoom Issa Faye ah ñoom Cheikh Mbaba ñu ngi leen woo ci lamb ji nii mafia bi yëpp maas borom Colobane suñu grand frère koo xam ne suñu amoon combat da ciy jàpp quoi da borom daam lu mu dogal ci moom di ko ñaanal grand frère bi ñu ngi lay masawu loolu bu a baax wallaahi a yëg di ko ñaanal suñ borom teggal ko loolu natt boobu yëpp ba mu delluwaat ko ñaanal jaam bu baax a baax Ndiogo Afia borom Kolobaan ki nga xam ne ku mu jaayal yëre baaxul Ndiogo grand frère bi ñu woo ci combat ma ko digoon nag ñu ngi xaar mayo Sénégal bi eh, Alaaji Sarr waaw di nga ko woo ci bu baax di ko ci woo bu baax a baax a baax quoi Noiro suñu grand frère ñu ngi koy woo ci combat bi ko ci mel ni Thiatou Boy Bambara depuis États-Unis ah grand frère bi di la wax ne lamb ji sa lamb la quoi waaye kon li Doudou Baka Sarr bi yëpp gi nañ fi ñu teg lamb ji quoi di leen woo ci lamb ji di wax ne ka ba mag ñu ngi lay wax lamb ji sa lamb la ngeen ñaanal ñu sans intérêt suñu frère suñu lépp fii ba Espagne ah ñu ngi lay woo ci lamb ji ak suñu mbokki immigré yëpp ñu nekk es gars nga xam ne dañ doon wax yokkal ma jàllal nekk foofu ñu ngi leen taalal loxo maam Maysa ñu ngi lay wax ne lamb ji sa lamb la ma Diagne ah, ak sama baay faali ñoom Mbacke Tall gars yi di leen ñaanal fi ngeen nekk suñu borom defal leen jaamu rek waaw yéen jaamu ji yéen rek Modou Mbaye tama ah, sama père di ko woo ci lamb ji ni bu baax a baax sama papa Cheikh Mbaye waaw di sama papa di sama lépp di ko ñu woo ci lamb ji di ko wax papa bëgg nañ ko jàpp ci lamb ji bu baax a baax di nuyu suñu waa kër nag waa Touba waa Ndam sama maam yi sama raq yi ñëpp maa leen siyaar di leen woo ci lamb ji di la wax ñu ñaan bu baax di nuyu waa Ndindi bu baax a baax sama famille yëpp sama famille papa sama famille yaay ñëpp maa leen nuyu di leen siyaar di wax na ñu ngi leen di tegi coono gis nañ bi combat bi taxawee ba léegi da ngeen di sonné ñaan di ak yéene di ñaan yàlla suñu borom def sutura rek defal ñu ndam quoi Xaadim Fall di ko woo ci lamb ji bu baax a baax baax di ko woo ci làmb ji bu baax a baax di wax ne képp ku ñu limul rek jàppal ne temps moo ñu ko mel dañoo xaw a dañoo xaw a jiw ko di waa bi waaw ku ci mel ne ajuma ak boro bëgg nañ ngeen taxaw si ñu xool nuñ gisee maire yi ndaxte làmb ji dañoo bëgg ñëpp mobiliser wu yokkal ma jaale bu ñëwee stade ñu xam ne ñëw nañ ko di wax ne ñii amatuma seen fay quoi barke Serigne Sall li ma leen mën a fay rek mooy ndam ma fiyaa cag-cag yi bi maa leen ko wax ne di ko teg ci loxo Modou Gueye waxuma la suur si 500 murid dama koo xeeb ma fiyaa ceg-ceg yi barke alxuraanu karim képp ku daan ceg-ceg ñoom usuga si yéen laa teg waa xayma ga waa waa waa garas géejawaay waa koppe képp kuy ceg-ceg rek sama booy yëpp di leen wax ne lamb seen lamb la koo fam non waa garas géejawaay laa wax non géejawaay moom nañ dal jaamu rek sama mafia bi waa benn baraak ku ci mel ñoom ma ah, booy ñu ngi may woo keroog ne ñu ngi waaj waa benn baraak bi yëpp di leen wax ne combat bi seen combat la ngeen waaj wax ne tamit dañoo bëgg a ñëw ñoo bëgg ngeen jàpp ci kaar booy mën a ñëw jëndal leen tëgg yi di leen woo ci làmb ji baax a baax suñu xale tamit ñu ngi koy woo ci làmb ji di wax ne Bébé Gouy Gui le retour de Jasaaka la ñu wax borom bala ngay riigo da ngay raago bala ngay torojo da ngay morojo cinéma bu pare bokkul ak bu Ndakaaru soxna si àdduna da ngay jàng ba pare door a xam mais école bi da ngay jàng ba pare door a xam di ko wax ne Bébé Gouy Gui xam nañ lu bari te làmb ji ndam rek mooñ ci jég xaaral lépp nag ay ca di jéegul tamit ci site yi nga xam ne da ngeen wu quoi ku ci mel ni kii nu mu tuddati ndereb ndereb info suñu mbokk bawol bawol bi di nga wax ne yàlla dem ba nekk télé quoi kontaan na ci déplacement bi nu mu tudd Sénégal Séléya Vision tamit di leen kontaan di wax télé bi yàlla dem ba yokku quoi suñu xalaat TV tamit di wax ne waaw kontaan nañ ci émission bi di wax ne télé bi yàlla dem ba yokku ba ngeen gis ci Sénégal tamit ah ñaanal caméraman yi di wax da ngeen di sonn di promouvoir xale di bàyyi seen temps di bàyyi seen lépp di jàppale xale di wax ne gars yi nañ abonné quoi ku naan yokkal ma dawal abonné ci Siri quoi fa la di leeree sama maman Khady di ko wax yaay booy tamit ñu koy siyaar bu baax a a baax a baax di ko masaw suñu yaay suñu lépp suñu mama sukay sama koñ waa koñ waa bentali ñoom papa ñoom Habib di leen woo ci combat bi baax a baax a baax di wax ne képp ku ñu limu rek jàppal dañ ko dañoo si xel mooy fatu mais woo nañ ñëpp ci lamb di ñaan ñëpp Kandji production grand frère bi PDG bi ki nga xam ne mi ngi jàppale Sénégal gi yëpp barkeel Alxuraan ñu ngi woo ci lamb ji bu baax di ko wax ne bëgg nañ sa taxawaay ci lamb ji ñu la ciy woo bu baax a baax man Yankaw Junior maa lay woo ci lamb bu baax a baax di wo képp ku naa yokkal ma jaale képp ku yor kurus di ma ñaanal tamit maa lay masawu di la wax ne lamb dafa metti gis nañ taxawaay bi gis nañ ñaani di wax ne yàlla ñaal ñëpp jaamu bala le 28 yàlla suñu borom defal ñu ndam Aïcha noonu lañ leen indiloon fii nga xamante mooy HLM ak ki nga xamante mooy Yanka Junior taalibe bi Baye Fall bi nee la war a dajee ki nga xamante ni mooy bébé guy gi borom géejawaay waaye Modou Baye Fall li mu def nii sax xamu ko nee naa leen combat buñ ci tudd rek ñu dar gémmañ waaye combat bi da cee raw foofu laay jaaree rek di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete gannaaw yàlla leen suñu borom ubbi ci laa koy ñaanal leen ñu tëdd ci yi ñi nga xamante ni nii ñooy suñu wéy dawlu yi maa ngi ñaan yàlla dool leen leer foofu la ñuy jaaree jaaree di jaale axlu murit gi yëpp Baye Karim waaye si laa jaaree sama xarit bi Assane Fall di ko masaw bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree ca keppaarug baayam ca keppaarug maamam ga di gërëm ñëpp di kontaane ñëpp waaw muy muy muy muy sama soxna si sama soxna si ba mu ñëwee ba tey li ma naan namatuma dara di wax ne instant li gars naan son boobu ñu loxo ya ma nekkoon. Euh, baaxul woon. baaxul woon waaye ah, saa ci loxo yi mbéy laa nekk. lu mu toggul ginaar baaxul Serigne Niass Teranga ah. borom rob bi ci asalem. borom Serigne Niass Teranga yàlla na jaamu yàgg. dégg suñu benn mbokk tamit muy Maama Lamine dégg naa yaayam dafa gaañ. maa di ko wax ñu ngi lay masa bu baax baax ndax ñàkk waajur metti na trop mm-hmm. di la ñaanal suñu borom fa mu tëdd dina ko fi mu jógee njaboot gi mu fi bàyyi yëpp suñu borom barkeel leen am xolu muñ te yokkoo di ko masaw bu baax a baax. ndeysaan Mama Lamine Mbër waaw ñu ngi koy jaale moom tamit juróom bu jigéen boobu bi wàññeekoo ñu koy ñaanal yàlla alaaxira di noflaayam te suñu borom àtte ko ci yërmandeem xaaree ko aljanay firdawsi si turu mafia bi yëpp maa ko koy jaale bu baax a baax a baax Aïcha di leen kontaane bu baax.